dañ ñëwoon adressé na ci lamb boo xam ne Abdoulaye Diop moo ko fi tegoon muy 500000 francs Gora Sock jël ko ci digganteem ak euh, doomu Barlet Siki ah. ñu promoteur bi nag bëgg a waxtaan ak moom bëgg ko laaj euh, mu ngi juddoo ñuy wax Sumlo mu ngi nekk biir département de mhm. Abdoulaye Diop lan moo si lamb ak lan moo li ko dugal ci lamb mooy. Mhm. suñu production boo déggee suñu production dañ ko tiiree ci dëkk bu ñuy wax sum di dëkk cosaan bu mag yi boo xoolee firnde gi mooy décoration yi nga fi gis dañ doon wane mbër na mu daan mbër bu na mu daan mel bu njëkk donc comme dëkku cosaan la ñu yaroo nag di seetaan làmb à base ba fi ñu toll loolu moo ñu gën a poussé ñu bëgg làmb di ci yëngal ba yegg si fi mu nii. non mosuma bëri. Ah. dama ko bëggoon nag. Uh-huh. waaye nag ànd naa ak mbër. Uh-huh. ban mbër euh, bu dee sum uh-huh. ànd naa ko ak benn mbër bu ñuy wax Moussa Adam Moussa Senghor mais Moussa Adam lañ ko gën a xamee. bokk na ci ñu gën a tax ñu bëgg làmb. teg ci Ousmane Sali. bato Sénégal Ilimane Diam alaaji capitaine mooy ñi ñu doon sargal tey ci journée bi. bato Sénégal bokkoon na ci. bato Sénégal bokk na ci. Mhm. ñooñu ñoo ñooñu ñoo ñoo doon tax ñuy def des kilomètres et des kilomètres à pied mhm. pour seetaan lamb mhm. loolu moo ñu gën a poussé ñu bëgg a ba yëg moo la poussé ba nga yëg seeg moom ak fii tey. et dëkk bi bu naa ma jom raf sa jógee. ban dëkk la. Sumloo. Sumloo. Basirou Sarr jógee foofu. Adoline jógee foofu. ñu mel ni ñoom Madou Yaay. ñoom Doudou Xajom. ku fa juddoo war ngaa bëgg làmb boo buggee làmb war ta bett kenn Abdoulaye Diop foofu la juddoo mooy sa première édition ak saison bii ñu nekk tey mooy première édition ren jii tey mooy première édition bi mhm. di waajal deuxième édition bi mhm. muy drapeau Angel Fall mhm. war a xamee fii ñu nekk nii te Adrien Senghor mise bi di un million de francs CFA un million fii fii Adrien Senghor ah. boobu nag buñ ko waxee warul bett kenn date bi kañ la janvier ndax Angel Fall mooy fondateur suñu production hmm. moo ñuy poussé hmm. di ñu jàppale de gauche à droite hmm. ba ñu yëg si fii ñu nekk tey Abdoulaye Diop mi ngay waxal tey mooy mais nag jàppale bi dafa yaatu parce que gox bi ñu dëkk ci département de Foundiougne mooy Log boo dëggee Log te di gox boo xamante ne dëkk cosaan la sum Log ci la ndóorom Log mbasis Log mbam Log Caare Lo mhm. Kër Samba Wane mhm. ak Saab mhm. ñooñu loo composé waa Louga boo gisee mu demee nii tey dañoo boole amateuru Dakar ak amateuru Lo je peux am na ñu jógee bésum tey jii uniquement ngir ñëw pour teewee lamb ji. kon daal Ablaye bu ñu la déggee tey dafa mel ni Ablaye kontaan na ci bésu tey tey sant naa yàlla bu baax. sant ci amateur yi sant ci ñi ma jàppale yëpp mënumaa jaajëfal ñëpp nag bàyyi leen ndax lii yombut di leen jox rendez-vous nag le 21 janvier. bala ngaa jox rendez-vous dina am lu ma la laaj quoi parce que dama gis làmb ji diiraan làmb ji dem Ablaye yoon ay chaque jour mu sa chaque instant mu génne dara génne dara ba ci bant bi loolu lan la yi nga téere lii suñu mbaaxu maam la. Hmm. bant bi su ma la naxul. Hmm. mënuma la wax fii la jógee. mais dama la ne. Ah, ku la ko jox sum production bi ma wax. Hmm. waa sum yëpp. Hmm. waa loo dañ ci gis seen bopp. dëkk yi man a doon limal léegi. Hmm. dëkk boo ci gis am na lu fa jógee. pour promoteur bi. pour promoteur bi rien ko pour lamb ji jàll. te dafa yemul foofu. ñi nga gis ñuy dox ci géew bi yëpp. am na ñu bëri ñoo xamante ne jóge wuñu loolu. ay amateur lañ. boole seen bopp ci lamb sum production. ñoo di def seen participation. moo tax mu demee nii. mais li nga doon wis nit ñi nag loolu lu coow li bëri bëri bari bëri bëri. lamb day yekki. lu coow li bari bari bari bëri bëri. Hmm. Hmm. Hmm. deret du tuur. te lamb ji dina yëg. incha allah rabbi li bandu lan la socc wi. socc wi. mënuma laa socc lan la. ah moom Abdoulaye. te xamoo socc lan la. sama maam moo ma ko jox. caméra am sama ngiree Mouhamed Dieng waxal. non Mouhamed na wax socc bi. Mouhamed il faut mu ne. <laughs> socc kii. yóbbante la wala may fànn ci ginnaaw la ko jox. sama maam moo ma jox bii. lu lamb ji métti métti métti métti. képp koo la toogal. Hmm. toog rek lay def. waaw ndax gis nañ benn instant. daa ngi koy ak koy soccoo. Papis yëngatu yëngatu bu métti. fa mu taxawoon di yëngatu. waaw du mos a yëg si. toogal toogal foofu. Hmm. du yëg si. fa lay sedd daa mujj sedd. wàcc rek lay mu mel ni yow kon bu ma la déggee daal yow sax est mbër yi gënoo leen a taxaw yow miskin ma dafa mel ni. bi. waaw ndax gis nga ku mel ni aadama Diouf. Adama Diouf waaw gis naa ko ci ci bés bi. sama doomu ah, ma jege la Adama 24 sur 24. Hmm. boo ma soxlaa. Hmm. gis bu ñu nee Adama a ngi ñëwee fekk ma ku ci mel ni Moussa Adam. noonu Mampoor Diouf pareil François Ndour noonu ak waa suñu loolu yëpp te ñi ma la limal ñi jógewuñu loolu mais dañoo boole seen bopp ci suñu production dem ci ba yëpp takk xëy na Ablaye Diop la ñuy dégg turam mais li ma ci joué sax moo gën a tuuti. relève gis nañ ko fi lu sa diggante ak moom. Reug de di mhm. man képp kuy dundal lamb mhm. sopp naa la. rëg-rëg li muy def dama ci kontaan loolu ba ci kanamu yàlla ndax xëy na ku ko xam moom mu ne du séeréer mais rëg-rëg mu taxaw di dugg ci géew kenn mënu koo génne ci cosaanu séeréer séeréer cosaan bi ma sol tey gis nga ko am moom muy dugg si dala ñi baaree dara man ko ci cosaanu séeréer kon képp ku bëgg lamb war ngaa mun a sopp loolu ni ci rëg-rëg ni ci ubu njaay ni ci Franc Mouhamed jan gis ngeen ko ci géew bi mhm. El Hadj Ndour ainsi de suite Gora Sock pare ah xanaa production ak amateur yi ak mbër yi nii la mhm. le 21 janvier mhm. drapeau Angel Angel Fall un million de francs CFA Walid TV kontaan naa ci yéen xanaa yàlla mi am fay parce que aw ma seen fay lu ma leen gërëm a gërëm xeeb naa dénk naa leen yàlla dénk naa leen mag ñu baax ci barke Cheikh Ibrahima Niass yàlla leen yàlla gaa defal mais bu ñu fàtte nag Babacar doon wax ak yow Mouhamed moo nekkoon ci caméra bi xam nga bés bu Babacar teewee Mouhamed sangi sangi ci gàmmu gi leen jógee nii la mun a demee kontaan naa ci yéen am naa kontaan jërëjëf